mais man ma bëggoon indi comme contribution rek ginnaaw bi ma jégaloo ndax ba ba léegi dama xaw a nekk ay xat-xat wax dëgg yàlla pour moo mën a euh, dal ba mën a ñëw ci ndax nekk na mbir bu am solo bi nga xamante ni ci daal pour wax si dafa complexe tellement dafa laaj benn dal bi moo waraloon sànq ba léegi mu jàppandiwul woon ci man waaye li ma ci bëggoon apporter rek mooy nii li nga posé mooy euh, da nga fa am seetlu boo def muy nii da nga gis nii mutasawif yi ñoom xëy na si côté woo jaam yi euh, jàpp leen tarbiya leen raxas seen xol delloo leen ci yàlla ba ñu mën a jubook seen boroom jaamu yàlla ñoom côté boobu réussir nañ ci waaye côté bi nga xam ni moom mooy le niveau politique muy organisation sociale bi nga xamante ni si tey ñoom jullit yi war nañ ko constituer wu en communauté mu nekk état bu dëgër mën a imposer wu dans le monde euh, côté boobu dañ ci échoué. mu nekk wax dëgg yàlla constat bu bu bu am bu am solo bu bu intéressant wax dëgg yàlla bi nga xamante ni ci képp kuy julli rek war na ci xalaat waaye bu ñu bu ñu koy bu ñu koy analyser dañuy dellu ci cosaan ba parce que da nga indi ñaar da nga indi li nga xamante ni ci moom mooy politique indi li nga xam ni moom mooy islaam maanaam le monde musulman jullit yi ñoom seen biir nan la ñu war a organiser woo en un te état boobu yenente bi sallallahu alayhi wane na ko indi na principe yi indi na loi yi indi na lépp li nga xam ne ñoom ñoo war a constituer état musulman yooyu nga xam ni c'est au-delà même des frontières ndax fépp dafa waroon état bi nga xam ni jullit yépp la waroon fédéré euh, mën nañu territoire am tey mooy dëkku jullit yépp tey moo waroon nekk état islamique boobu ndax tey jullit yi benn état la ñu war a am benn njiit la ñu am benn jubluwaay la ñu war a am ñu gis ni côté boobu noonu Euh, xëy na yonente bi li nga xam ni bu ñuy wax tey état ndax état yi dafa bëri am na ay forme d'état yu bëri am na démocratie am na théocratie am na monocratie waaye bu ñu xoolee système bi nga xam ni yonente bi sallallahu alayhi moom la ko yàlla xamal mu indi ko organiser ko julli yi ni ñuy dundee seen biir en en communauté ak ni ñu war a organiser wu ak système Euh, ni ñu war a commercer système bi yépp ak seen justice ni mu war a tëdd yépp yonent bi salaa sallam andi na ko teg fi waaye laatu ñuy ñëw sax si euh, l'islam aux dimension politique dañuy ñëw abord si islam dëgg dëgg dëgg ndax tey mu tasawif yooyu tey première mission bi nga xamante ni si tey moom la yonent bi salaa sallam euh, taxawee ci jaamu yàlla yi mooy da leen woo ci tawhid da leen woo ci shahaadatu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ndax bu ñu xoolee tey mu tasawif yi mu eh, tasawuf mooy jaam bi wéet bi muy wéet jaayante ba xolam set mu am fatxu ci digganteem ak boroomam tey bu ñu xoolee yonente bi salaa salaam ci jamonoom eh, laata wax yu bi di ñëw ci moom moom yonente bi salaa salaam da daan génn màgg di dem euh, ci ci mën naa ni ci àll bi muy xayru xilaak ci benn montagne bu kawe bi nga xam ni da daan wéet foofu euh, di fa toog di fikra di xalaat suñu boroom xiif di ko fa fekk mar di ko fa fekk weetaay bi rafla bi muy tudd yàlla di laaj yàlla li yàlla di wax ci quraan naan allazina yaskuruuna allaha xiyaaman wa quudan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samawati wal ardi di xelu ci lépp li nga xam ni moo nekk ci diggante asamaan ak suuf di laaj suñu boroom naan rabbana ma xalaqta haza baatilan ba yàlla fekk ka fa yebal ko jibril li mu naan aram nasrax la ko sadra euh, opéré xol bi comme ni ñu ko waxee dindi ci lumb lumb yooyu comme ni ñu ko waxee ci quran defal ko fatxu yónni ko jox ko risaala bi mu war a ñëw nag woote te ba muy woote ñëw rek teg système politique déedéet waaye da doon woo jaam ñi ci tawxid ci laa ilaha illallah ci xamal leen lan mooy laa ilaha illallah comme ni mu ko waxee man maata wowwa yaalamu annahu laa ilaha illallah daxala janna aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin waaw ah, comme ni ma ko waxee rek moom yonente bi salaa sallam tàmbali bu wooteem nekkul woon organisation politique boobu charia wàccagul boobu julli wàccagul boobu wóor wàccagul boobu natt aska wàccagul waaye li fi nekkoon mooy li nga xam ni moom la wax ni يالا وقت تقو أني وما أرسلنا من حبلك من رسول إلا نوخي إليه أنه لا إله إلا أنا فابدوني لنا هم نموم لا يالا وحي هون يرنتي يب تنبليكو تي آدم بچي موم لا إله إلا لا لول لك وحي خمال كن نيكا نيرا يب موم لا لين وحي هون تي لول موي إسلام تي كيب كو ديوالي من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا لا دال جنة كيب كو ديوالي تي خمبات بوب نونو deewaale dugg àjjana ndax day deewaale ak tawxiid day mucc ci li nga xam ni moom mooy bakkaar bi nga xam ni yàlla nee na mënu ko jéggale muy bakkaar bokkaale yonent bi salaa salaam si jamono jamono boobu nga xam ni wax yu bi dikkal na ko muy at yu njëkk yi ci islaam muy woo jaam ñi ci islaam di leen woo ci laa ilaha illallah di leen ci woo di leen ci woo di leen ci woo mu dem ba jullit yi commencé am benn communauté mais benn minorité la ñu woon biir màkk mu dem dem ba commencé waa màkk di leen réprimer di leen boddi di leen xas di leen dóor di leen rey ci am ñu ci rey euh, ba ba sax julli di gàddaay mujj gàddaay jóge màkk dem medina kon boobu yonente bi salaa amul woon force pour teg un pouvoir politique mais bi mu demee màkk ba mu fa demee sax yahud ya la fa fekk waa ansar ñi nga xamante ni yahud yi bi mu ñëwee dafa def ak ñoom pacte nekk màkk nekk fa di woo jaam ñi ci tawhid di woo jaam ñi ci tawhid ba jaamu yàlla yi ñëw nag ba daje ba julli di nekk communauté ba nekk mbooloo mbooloo nag waaw wax dëgg yàlla fu ñu daje nag war na am ay règle war na am ay loi yi nga xam ni moom moo leen di tënk loolu la ñuy wax l'organisation sociale loolu mooy politique te foofu nag la yenente bi salaa salaam nag nekkee chef politique foofu la nekk ki nga xam c'est un dirigeant politique commencé di def ay pacte def pacte ak wa mak commencé di am ay émissaire ay ambassadeur di envoyer ci bour yi ñuy dem islam di tambali di yaatu système politique bi commencé installé wu boobu jóge nañ ci état bu ndax jullit yépp gannaaw buñ ko wuysee si tawxid ba defaru ba seen xol set yàlla nag xamal ko nag ni ko jullit yii mbooloo yi daje dinaa wàccee ci ñoom sharia sharia boobu mooy li nga xam ne moom moo leen di organiser socialement mu doon ndax tey buñ ne nee justice tey islam lépp luy justice tënk na ko àtte yépp indi na ko bu ñuy wax tey système économique nu ñu war a commercer nu ñu war a euh, épargner lépp moom islam jàngal nañu ko kon principe yooyu nga xamante ni si moom mooy tëgg état yeneen bi sallallahu alayhi wa indi na ko moo tax ma ni la tey kenn amut ci jóg di taxaw naan day taxawal état ndax état du du du du nit waaye état ay institution la ay principe la principe yooyu nag mooy principe yi nga xamante ni ci tey ci organisation sociale islam jàngal nañu ko li ñëw ci sharia euh, lu mel li nga xam ne ñu koy jàngal ci fiqh ak li nga xam ne ci xadis ya te bu ñuy wax naan état islamique tey bu waroon am constitution constitution bi mooy al karim mais nag bu ñu ñëwee ci au niveau politique ñu analyser tey islam aouzu billahi min shaytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin euh, bu ñu bu ñu ñëwee euh, sur le plan politique dans le monde musulman dañuy gis ni ginnaaw euh, fi nga xam ne Ababacar Saddex mi ngi mi ngi nekkoon amir bi jóge fi Omar ñëw jóge fi Ousmane ñëw joge fi àllin ñew ñom ñep ñu nekkon ay armée yi nga xamni ne jullit yépp jublu won nañ leen nanguloon leen ñu jullit yi amoon benn njit njit yooyu nekkoon fi ñëpp reconnaître leen ñoom ñu dem ba jóge fi biñ fi jógee nag tàqalikoo commencé am si biir jullit yi si tàqalikoo bi mi ngi tàmbalee ci biir principe yi nga xam ne moom moo war a tënk la société musulmane maanaam jullit yi ñoom seen biir tey li leen waroon tënk te ñu jàngal ñu ko ci fiqh Jangan nu ko ci sharia jangal nañu ko ci ay hadis tay lolu sax principe yoy sax julli di dañ ci am wuté motax division ci bir monde musulman ba nga xamni ne am un état islamique ndax état islamique du sénégal kay am du mauritanie kay am déedéet mais état islamique le monde musulman ñom ñoko wara am fepp fuy jullit amul frontière waru ko tënk ndax islam dafa nek. Euh, diine bi nga xamanteni si bu universel la kon tay boy wax état islamique état bi nga xam ni islam la taxawal principe bu islam la taxawal kooku jullit yépp lay engagé te bu boobaa àdduna bi fépp lay sar fépp fu jullit nekk rek état ah, boobu yow ah. dafa war a am pouvoir ci yow ndax dafa am ñaari pouvoir li ñuy wax le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel pouvoir temporel boobu nag dafa dem ba jamono jullit yi dañu dañ ci divisé wu déggoowuñ ci ànduñu ci ñàkk ànd boobu nag ñu ci ñàkk ànd moo waral tey boo gisee tey par exemple boo demee euh, Arabie Saoudite da ngay gis ni république islamique la déclaré nga dem Mauritanie république islamique la déclaré nga dem Iran république islamique la déclaré ñoom ñëpp nee na ay république islamique la mais boo xoolee seen constitution tey du Qur'anul Karim te yenente bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ni moom moo teg tey la république islamique xamal nu islaam lan mooy politique am politique étrangère am lan mooy politique économique am lan mooy politique sociale am lan mooy politique agricole am nga xam ni lépp islaam jàngal nañu ko tey pays yooyu di réclamer wu en euh, république islamique boo demee seen constitution te yenente bi sallallahu alayhi wasallam constitution moo doon Qur'an te boo demee boo demee ci dëkk yooyu ñoom dañu bind seen constitution bopp kon cela veut dire que ni mënuñu ko reconnaître ñu ko jàppe comme république islamique te boo xoolee dans le dëkk yooyu noonu seen biir sax dëgg-dëgg li nga xam ni moom mooy atte sharia yi dëgg-dëgg li nga xam ni moom lañ ñu war a attewoo sharia ñoom dunduñu ko ndax boo xoolee dans le cas de l'Arabie saoudite MBS bi nga xam mooy prince bi mooy doomu buur bi ñoo ngi koy wax gis nga rey journaliste journaliste bi nga xam dëkkam rey ka daggate ko lu graw kon ñooñu respecté wuñu sharia ndax moom ci boppam sharia ray na ko te pourtant tey moom moo prétendre nekk amiru ñi nga xam ñoom ñu am kara boobu noonu topp leen tey tey boo xoolee eh, arabie saoudi ci politique étrangère am euh, états unis am na ay contrat yi nga xam ni 400 milliards de dollars li nga xam ni 60 fois budget sénégal 60 fois budget sénégal muy alal buy jóge arabie saoudite di dem États-Unis di soqali ñoom yu États-Unis alors que am na ay pays musulmans yu nekk en Afrique surtout en Afrique de l'Ouest yu mel Sénégal yu mel ni Mali tey 60 fois seen budget le Sénégal bu ne 4000 milliards la 400 milliards de francs CFA la Arabie Saoudite investi investir biir États-Unis nga xam ni 60 naa ni budget wu Sénégal nga xam ni tey États-Unis bu si yëkkati un un centième rek de dolli ko ci budget Sénégal rek Sénégal mën a avancé mën a développer waaye tey boo xoolee li France di def Sénégal wala États-Unis di ko investir Sénégal wala dëkk yi nga xam ni ñu ngi naan dëkku yéefar lañu li ñuy def ci seen alal Sénégal sax Arabie Saoudite boobu wala Iran boobu ñuy wax naan république islamique la defuñu ko ci Sénégal te pourtant Sénégal est un pays musulman moo tax ñoom seen politique. islamique dafa limité wu te li waral mu limité wu dafa limité wu ci benn idéologie ci benn vision bi nga xam ni bokkut ak vision bi nga xam ni moom mooy dëgg-dëgg islam di la vision bi nga xam ni moom mooy vision bi universelle aousubillahi mina sheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin moo tax tey suñu ne par exemple duñ ñu Sénégal lan moo tax amuñu état islamique walla Mali lan moo tax amuñu ko déedéet ndax boobaa yaa ngi créer division ci biir monde musulman yi parce que Sénégal rek duñ fi ay musulman monde islamique musulman yépp la war a engagé kon da nga naan la question mooy lan moo tax jullit yi ñoom tey amuñu capacité nekk benn communauté am benn njiit ñoom ñépp ñu jublu ko jullit bi nekk fu mu mënti doon ci àdduna bi ñu am benn jubluwaay comme euh, comme yonent bi salaasan bi fi nekkee jullit yépp niñ ko jubloo wala sahaaba yi jullit yépp niñ leen jubloo ci Seydina Ali jullit yépp jublu ko lan moo tax actuellement nii ñun monde musulman mënuñu am loolu kon échec boobu ñu ñëpp la engagé muy murit muy tijaan muy xaadir muy wahabiste muy salafiste muy chia euh, ñun ñëpp tey échec boobu la engagé dafa doon tey li nga xam ni yat bi ñu ñëpp lay dal ndax tey waroon nañu mat mat bi nga xam ni ñu ñëpp dañuy sax ci dëgg ànd ci dëgg tànn ci nga xamante ci njott nañu moom moo gën si ñu jiital ko ngir borom bi mën a def defal ñu tawféex te loolu tey dañ ko échoué kon ñun ñëpp la engagé li des nag mooy tey li nga xam ne nag moom mooy organisation politique boobu dëgg-dëgg du islaam islaam mooy tàmbaliwaay boobu la nga xam ni moom la yonent bi salaa salaam doon woote muy si tawhid muy si laa ilaha illallah loolu nag loolu la waa njoñ tasawuf ñëw di yeesalaat ndax Serigne Touba ñëwul pour teg état islamique waaye mission mooy dafa ñëw ngir yeesalaat islam moo tax ñaar yooyu buñ ko jaawale yeesal islam. ak ñëw teg benn état état bi nga xam ci pouvoir temporel loolu du du objectifu Serigne Touba Serigne Touba vision wam mooy mbindeef yépp nga wax mbindeef yépp jamial wara bàyyiwul kenn kon tey jéggi na Sénégal nii mu def ko état islamique déedéet moom tey la nga xam ni moom mooy moom mooy mission mooy yee salaat ci islam ba nga xam ni moom la yonente bi salaa salaam doon woote te moom mooy dëgg-dëgg woote bi muy woo jaam ñi ci tawxiid xamal leen luy laa ilaha illallah ñu mën a xam seen borom kennal ko buñ demee nag ba nga xamante ni sii nii gis nga ko jullit yi war nañu ànd war nañu xëy na doon benn communauté am benn njiit sur le plan politique ba mën a imposer wu euh, sur le plan politique kooku dañ koy bàyyi ci loxo yàlla xëy na bis yàlla dina dina dina dina dina yebal ab ndawalam bi nga xam ni politiquement jullit yépp ci aduna bi mom moy taxaw symbolique que les vrais principes de l'islam bi nga xamni mom moy même méngoog jamono bobu non yalla may ko kàttanu koku bu ñëwee wacce ko vrai politique bi nga xamni mom la islam andi muy politique bi gëna yes yees bi gëna a sell bi gëna set bi nga xamanteni ci amul ben discrimination amul corruption amul dara koku man ko tek koku nag motax man sax sumay dégg sax ci ay ñuy wax naan am na imaamul mahdi ki nga xam bu ñuy jullit yépp moom la ñu war a topp man dimension bi ma koy dégg mooy ki xam ne bu ñëwee sur le plan politique moom mooy rassembler tous les musulmans mais nag sur le plan spirituel ku si nekk yàlla dina la booleek jëmm ji nga xam ni boo jaayanteeg moom dina raxas sa xol bu mu set àggale la ci laa ilaha illallah ndax maa ngi lay dégg yow Ndiassa yaa ngi wax ni euh, yaa ngi wax wax ju am solo naan rëy ak soxor ak iñaan ak yooyu fexé tàqali ko mais nit rëy dina dem ba tollu ci mom wala iñaan ba tollu ci mom fi nga xamni xamna ni li mi ngi ci mom bu doon sañ-sañam mu dañ ci mom waye febar bi dina dem ba ag ci mom fi nga xamni mom du ko fajal bopam faw mu dem séti ki nga xamanteni ci moy docteur du waxuma la docteur bi nek hôpital waye docteur ruh docteur xol bo ñëwee koku mo lay jaarale à travers des étapes par xass xol bu ci nekké mu dindiko bi ci soxor nekké mu dindiko ci kaw nangul bi nga koy nangul ndax yàlla da koy may xëkk mawu bu la xoolee xam yow lan mooy sa feebar xam tamit naka la fan la la mën a jaare ba faj feebar boobu noonu kon loolu moom mooy mission waa ahlu tasawuf mission boobu nag muy muy ñetti charia bi nga xam ni moom moo organisé socialement politiquement jullit yépp mën naa ni tey charia boobu noonu ñun ñëpp ci échoué te loolu yat bi ñëpp lay dal beneen bi moom mooy tarixa tarixa boobu nag charia ñëpp la concerné tarixa nag ku si nekk boo demee ba doon muskalaf dala war li yàlla ni yaa ayuha allazina amanu ittaqullaha wabtau ilayhi alwasila wa jahidu fi sabilihi laallakum tuflihun aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin waaw li ma li ma bëggoon yokk foofu rek mooy ni mooy comme ni ma ko waxee léegi euh, sharia li nga xam ne mooy sur le plan politique loolu yàlla daf ñu ko bàyyeel ñun jullit yi ñoo war a mat mat bi nga xamante ni si ñun jullit yi war nañu ànd ñun tànn kenn suñu biir jiital ko te kooku buñ ko defee yàlla defal nu tawféex yokk nu ba àdduna bi ñun ñoo fi ëpp doole am na beneen bi ci des nag bi nga xam ni boobu du ñun julli di waaye ku ci nekk loolu fardul ayni la muy responsabilité divine individuelle comme ni ko imam Azali waxee Sëriñ Tuubaa andi ko ci Masaalikul Jinaan ni euh, amma tasawufu fa fardul ayni la daal Azali yu bi dunil may ni waa tasawuf fardul ayni la obligation divine individuelle ki nga xamante ni si du jullit yépp ko war a def noonu mais yow jullit bi boo demee ba doon muskalaf dafa war ci yow nga dem sàkku ji wasila comme ni ko yàlla waxee yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha wabtau ilayhi alwasila wa jahidu fi sabilihi laallakum tuflihun yow mi nga xam ne yaa ma gëm te ragal ma mu ni Eh, ittaqullah wabtaxu ilayhil wasila nag ma ragal man yàlla te nga sàkku ji ki nga xam ni moom moo lay àggale ci man yàlla wa jaahidu fi sabilihi te nga jaayanteeg moom si sama yoon man yàlla la'allakum tuflihuna soo bëggee am texe yoon boobu nag mooy yoonu tarixa mooy yoon ba nga dem wuti wasila jaayanteeg moom ngir mu faj feebar yooyu si yow raxas si yow rëy raxas yow iñaan raxas si yow siis si jaayante bi ngay jaayante mu la si leeru laa ilaha illallah xamal la laa ilaha illallah ba nga xam yàlla bu wér a wér mu bàyyi la nag nga taxaw dund ci dëkk ba nga xam ni yoon ba nga teg woon fa la jëmewoon loolu nag mooy xaqiiqa dëgg-dëgg ndax ñett fi ne sharia tariqa xaqiiqa sharia ñun ñëpp koy bokk di dund tariqa ku si nekk yow yaa war a dem seeti sëriñ bu mat nga jaayante ak moom mu àggale la bu la àggalee sa dëkk ba nag ku si gis bu boobaa ñun ñëpp nag ñu ànd dund yàlla te yàlla tax moo tax tey lii solution bi dëgg-dëgg sax ku mel ni Serigne Touba wala Cheikh Ahmed Tidiane wala mu tasawif yi dëgg-dëgg ñoo fa ne ndax xam nañ ni tey li waral tey julli yi mënuñu politiquement ñu ànd doon lenn matee ni ñu war a matee tey ci àdduna bi taxawee ni ñu war a taxawee ñoom julli yi seen matadi la te matadi boobu li ko waral bi ñu réere yàlla moom moo leen jural xol yu wow moo leen jural ñuy soxarante moo leen jural ñuy iñaanante moo tax ñoom bi ñu ñëwee rek seen mission moo doon fekk jaam ñi raxas seen xol ba ñu set àggale leen ci yàlla te xoolee ku si ne moom système politique boobu la indiwaat comme yonent bi sallallahu alayhi mu doon yónnee saxaaba yi ñoom ku si ne bu ñu la defaree ba nga mat ñu seexal la yónni la nga dem di yaatal di yee jaam ñi te bu jaam ñi yewoo rek incha allahu xëy na borom bi dinañu boole ki nga xamante ni si dinañu mën a délivrer ba tey sur le plan politique au niveau international jullit yi mën a euh, taxaw ni ñu war a taxawee euh, mën a yokk seen ay conditions de vie mën a yàlla mën leen defal xewal fii ci àdduna ak fa ñu jëm waaw ñu ngi jégalu nag bu baax a baax waxtaan bi am na solo daanaka li ëpp solo waxtaan ngeen ko xanaa di leen siyaar rek di màggalaat bu baax a baax di jégaluwaat yi ñëpp tamit di wax nii Euh, dégg naa topp naa waxtaan bi yëpp am na solo mais daanaka am na ay digression dem na ba am ay xuloo ay position yooyu yëpp jaru ko ci waaw euh, mbir la rek bi nga xam ne ci refle source de réflexion la te pour man comme que WhatsApp la kuy dem ba di ba di si intervenir si débat yi si ëpp solo mooy li nga ci xam rek nga ñëw partagé ko incha allah ndax loolu rek mooy yokkute ñu ngi siyaar mbokk yëpp di jégaluwaat bu baax a baax.